pour ma def cartographie manam ñu wax fu nek fa alphabétisation yegg la muy def dina xawa jafé touti euh parce que ku nek ya nga sa coin di def la ngay def mais ñun nak au niveau de l'État. comme ñun ñoo état ñun dañu am ay programme yo xamné ñu ko teg diko ko dérouler ci Sénégal bi ci jëk ministère yoré ko direction bi yoré ko mom moy bi ñuy wax programme national éducation de base des jeunes et des adultes at bu nek dañuy ubbi ay classe euh, bu ñu jëlé 2000 14 ak léegi ak fii ñu toll nii ubbi nañ lu tollook ñaar fukki junni ak juróom-benn téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaaru classe ci PENAPJA ubbi nañ ko ci Sénégal ci région yépp ci département yépp yéegagul nag ci commune yépp parce que moyens yi dafa des demande bi forte na nit ñaa ngi laaj ay classe d'alphabétisation mais mënuñu leen ko jox parce que li ñu am mënuñu ubbi ay classe ren 600 lañ nar a ubbi liñu fi yoré bo xolé eh, man dañ may photocopier dama am sama benn ki fu may dugga chemise chemise bi li fi ne ëpp na 1000 mënuñu ko mënuñu leen jox classe c'est pas possible euh bo ñëwee bo ñëwee toujours ci état li muy def palam programme bu nekk feulé la au euh, ministère de la femme programme bobu mu ngi topato ay jigen ci seen métier di topato ay xalé jigen ñi 10000 femmes moy palam 1 bu jëk bi jeunes yi 3000 mais ba demande bangi fi c'était Djourbel et Kaffrine après la jall à 5 dolli ci Thiès Fatick et Kaolack donc palam bobu momit it mu ngi ubi loolu wax noonu ay mom surtout ECB école communautaire de base lay ubi yo xamné ne euh, ñu ngi ko arrimé ak enseignement élémentaire parce que dañuy bëgg buñu former formé ñu delloo leen ci école yi ñu am métier continue palam mu ngi koy def déjà ak formation professionnel mu ngi yore programme boo xam ne alphabétisation mu nga ca mais léegi defatuñu alphabétisation rek nii maanaam jàngal nit ki liir bind ak calculer dañuy def alphabétisation li ñoo fonctionnel nga xam ne dañ koy fekk ci métier ñu renforcer ko encadrer ko jàppale ko ba nga xam ne moom dina am autonomisation parce que président lool la wax nee na autonomisation des jeunes la bëgg ak des femmes ak emploi des jeunes te loolu pour nga def ko booy def alphabétisation da ànd ak kuréel yi nga xam ne ñoo yore loolu pour ngeen mun a former Euh, seen apprenant ñu mun a am autonomisation ñëpp mun ci gis seen bopp parce que président nee na bu ñu bàyyi kenn gannaaw am na yeneen programme yu fi ne yoo xam ne li ñuy wax organisation société yi ñoom ñoo ko yor bare nañ trop mënuma ko lim bare nañ trop mais mun naa si jukki ku ñuy wax Alpha Dev liggéey bu rafet lay def si euh, banlieue de Dakar Pikine Guédiawaye am nañu use am nañu palaye am nañ yeneen am nañ nag coordination nationale des opérateurs en alphabétisation nañ léegi ñoom ñu ngi ci toute l'étendue du territoire fu ci ne ñuy ubbi ay classe ànd ak collectivité territoriale parce que collectivité territoriale yi ñoo yore léegi éducation bi ànd ci ak suñu bras technique yi muy IA donc loolu laa leen mun a wax a gum ci cartographie bi li ñu am a gum loo xam ne mun nañ ko wax mu leer mais nag ñu ngi liggéey liggéey boo xam ne parce que dañu war a changer comportement nañu doon doxale lëkkaloo ministère yi lëkkaloo organisation société civile yi acteur yi nga xam ne ñoo nekk ci secteur bi ñu àndandoo ku nekk ñu xam lan ngay def ñu capitaliser ko euh, joxe ko nit ñi mun a xam ne lii la ñu am fii la ñu jëm lii la ñu bëgg ñu xam ko pour Sénégal yëpp mun ci gis seen bopp.